لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم mbokki jullit yi asalaamaaleykum mbokki jullit di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk turam ak sant kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant bëggoon na ma am lu ma wax nee na bëggoon na am lu ma wax ci retard bii ci retard bii boo di dañu maa waxoon ne ma une heure moins quart dafa waxoon nii dañ ko waxoon ni ko une heure moins la quart la ba une heure quart jotee ba tey. nee na ba une heure quart jotee ba léegi nag. taalibe bu ñëw di siyaare. taalibe bu ñëw di siyaare rek. wala nga bëgg a waxtaan. wala nga bëgg waxtaan. yeewi naa la defoo fi ñaari minutes. nee na naa la defoo fi sax ñaari minutes. une heure mooy quart nag. une heure mooy quart nag. bokkul ak quatre heures. bokkul ak quatre heures. waaye ginnaaw wax na. nee na ginnaaw loolu wax na sax. li leen téye li leen téye. ma di leen ñaan. nee na moo ngi leen bi ñaan. ci kattanu yàlla ak yonentam bi ci kattanu yàlla ak Seydina Muhammad. bu déwénee bu déwénee. nañu bàyyi heure bi. nañu bàyyi heure bi. fan ñu ko daan defee fan ko daan defee. mooy heure bi muy heure bi incha allah. bu loolu weesoo. nee na bu loolu weesoo. maa ngi dellu di leen nuyu. nee na moo ngi dellu di leen nuyu. di leen gërëm. di leen di leen sant di leen sant. Ah, di sama doom yii na moo ngi leen di présenté doomam yii fi nekk toog. kii di papa Jimbira. nee na Momadou Jimbira. kii nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadou Jimbira. baayam nee na moom baayam. mooy sama taawu baay. mooy taawu baayam. kee toog kee Daawuda. nee na Daawuda Jimbira mii toog. ñoo bokk ndey ak baay. nee na ñoom ñoo bokk ndey ak baay. moo topp ci toppul ci moom. nee toppul ci moom. waaye mooy rakam. waaye mooy rakam de. Cheikh Fadal Jimbira mii. Cheikh Mouhamadou Fadal Jimbira a ngi nii toog. nee na baayam. ñoo bokk ndey ak bay ñoo bokk ndey ak baay. doom yii day. nee na doom yii day. ñoo topp ci man ñoo topp ci man. sës ci man rëkk sës ci man rëkk. te duñu ma rëkk te duñu ma rëkk. yal na yàlla guddal seen. yal na yàlla guddal seen fan. sant naa yàlla ak yonent bi. nee na sant na yàlla ak yonent bi. gërëm naa leen. nee na gërëm na leen. maa ngi leen di delloo nuyoo. nee na moo ngi leen di delloo nuyoo. di ko delloo bu jógee ci yow mii ñëw. di ko delloo ci ki nga xam mooy adjoint préfet bi toog fii tey jii. nga jottali ko gouverneur. nee na nga jottali ko gouverneur. mu jottali ko ministre bi. nee na mu jottali ko ministre bi. mu jottali ko président. mu jottali ko président de la république. di ko ñaan. nee di ko ñaan. di ko ñaanal yàlla. di ko ñaanal yàlla. yal na yàlla jàmm ci réew mi. yal na yàlla sot jàmm ci réew mi. tudd na léegi baat boo xam ne na nee na tudd na baat boo xam ne léegi. ci lay waxtaan. nee na ci lay waxtaan de. mooy mooy accident yi ngeen di wax accident yi nga xam moom la ñuy wax lu ko indi ci réew mi nee na li ko indi ci réew mi lu dul lu dul mooy yàlla gu bari nee mooy yàlla bu bari rek fukki gone yu góor yoo wàññi mbaa jigéen nee fukki gone góor yoo wàññi mbaa jigéen laaj leen laaj leen nu ñuy sangoo farata nu ñuy sangoo farata xamuñu ko xamuñu ko sax ngay mooy yàlla nee na ngay mooy yàlla xëy xëy nag yor sa sobe yor sa sobe dugg ci oto dugg ci oto ah yàlla këpp oto ba nan leen dellu ci yàlla sunu borom tabaraka wa taala nee nan leen dellu sunu borom subhanahu wa taala ba Facebook xewee ba nëgëni nee na ba Facebook xewee ba léegi ak WhatsApp ak WhatsApp ak YouTube ak YouTube musiba ngi ci réew mi musiba yaa ngi ci réew mi de tubaab dafa waxoon ni nee na tubaab bi dafa waxoon ni bu an bu États-Unis sojee bu États-Unis sojee Europe saqat Europe saqat Afrique yi tis li Afrique mooy tis li léegi Afrique soj nañu nee na Afrique dañoo soj de da ngay jur sa doom ju jigéen da ngay jur sa doom ju jigéen mu toog sa wet nii mu toog sa wet nii doxaanante ni ñoom ñi ñuy doxaanante aku faram aku faram nga toog di ko xool nga toog di ko xool rek xamoo ci dara xamoo dara li muy wax accident yii accident yii yonent bi salaa sallam dafa an niyatul muminina ixwatun faas astafirullah an niyatu ablagu min amalihi yéeney jullit moo gën a àgg ci yàlla sunu borom ka jëfam yéenay julit moo gën a àgg ci yàlla ak jëfam bari na ci ñun nee na bari na si ñun nag ñuy jàpp ñuy jàpp mbaa ñuy woor mbaa ñuy woor mbaa ñuy julli mbaa ñuy julli waaye dañuy bañ waaye dañuy bañ ku leen nemmat ku leen nemmat waaye agul ci yàlla waaye agul ci yàlla subhaanahu wa taala noo ngi ci jamono goo xam ni noo ngi ci jamono boo xam ni yonent bi salaa salaam dafa mos a wax ni yonent bi dafa wax ni salaa bu ngeen toogee bu ngeen toogee ba gis jigéen ñi ba gis jigéen ñi di dàq góor dàq góor ñi muy daw yéeg ci garab daw yéeg ci garab ngeen xam ne àddina jeex na xam ne àddina jeex na garab yi ñëw na. nee na garab yi ñëw na de. da ngay toog ca hôtel ba. nee da ngay toog ca hôtel ba. jël sa jël sa téléphone. jël sa téléphone. woo ko woo ko. ni ko ni ko. fekk ma état sangam fekk ma état sangam. ngeen fanaane mooy ba bët set ngeen fanaane fay ba bët set ba bët set. allahu akbar. kon garab yi ñëw na. nee na kon garab yi ñëw na de. nga war sa appartement. nga war sa appartement. yàlla dénk la stuut. yàlla dénk la stuut. tabaxoo jàkka. tabaxoo jàkka wala boo tabaxee jàkka. wala boo tabaxee jàkka. tabax hôtel. tabax hôtel. tabax appartement. tabax appartement. bu gone gu jigéen dikkee ne damay luyee bu gone gu dikkee ñëwee jigéen ñëwee damay damay luyee kon yow kon nga doon na xam nga jëkkër au lieu que ne ko ba am nga jëkkër. déedéet da nga ko naan lii laay faye mun la ma laay nuyoo mun la faye lii laay kii ko nangu naa maa fay loolu. nga ni ko caabi jaa ko caabi jaa ngi nii. mu nekk fay mooy yàlla mu nekk fay mooy yàlla. la muy la muy la muy mooy yàlla. mu fay la ci mu fay la ci. nga génne ci addiya nga génne ci addiya yóbbu ko ci sëñ yóbbu ko baa nga dundal ci njaboot baa nga dundal ci njaboot ji musiba daal di am waaw nee na xam-xam yàlla kenn du ko nax gone gu góor naka noonu nee na gone gu góor naka noonu da ngay tabax hôtel. da ngay tabax hôtel. képp ku tabax hôtel. képp ku tabax hôtel. mënoo faa bañ sàngara. mënoo faa bañ sàngara. mënoo ni de su fa mooy yàlla. mënoo ni kenn du fa mooy yàlla. waaye da ngay tabax hôtel. waaye da ngay tabax hôtel. boo paree dem ni damay tabax jumaa ci fële maa jàkk fële. boo paree ni damay tabax tabax jumaa wala jàkk fële. bu xaalis ba dikkee nag. bu xaalis ba dikkee nag nga boole lépp. nga boole lépp bu weer dee. bu weer deewee bu tabaski jotee. bu tabaski jotee nga génne cim xar. nga génne cim xar. bu aji màkka jotee. aji màkka jotee. nga dagg ci ay billet joxe Cheikh Mamour dafa daan wax ni. nee na Cheikh Mamour dafa daan wax ni. lépp luy tey sam xel sam xel. lépp loo xam day tey sam xel. du ma ko mos. du ma ko mos. ba jënd guro di ma ci fekk. ba jënd guro di ma ci fekk. yonent bi nee na woon. yonent bi nee na woon. aaxiru samaan. aaxiru samaan. dem màkka dana bari. dem màkka yi dana bari. waaye nangu aji dana néew lool waaye nangu aji dana néew lool. ndax li ñu yóbbu jëriñatu dara ndax li ñu yóbbu jëriñatu dara. waxu ma ni. waxuñu ni ku dem. ku dem makka. makka ci loolu. ci loolu amoo bii amoo maj. amoo aj ndax yàlla nangu aj. ndax yàlla mooy nangu aj. waaye sañ naa ni. waaye sañ naa ni yóbbu woo fa lu lew yóbbu woo fa lu lew de. nan leen seetaat suñu bopp nan xoolaat suñu bopp bu baax a baax. nan leen xoolaat li ñuy jëf. nan xoolaat li ñuy jëf bu baax. nan leen dellu ci yàlla ak yonentam bi. nan leen dellu ci yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. addina jeex na. addina jeex na ba pare. koo ko wax koo ko wax nag. mu ne ah man jeune la maa ci maa ngi ci. man de jeune la maa ngi ci vingt ans maa ngi ci trente ans deewaguma. waaye bi laay bu yàlla soxla nee na bu yàlla soxla yabal malaakam yabal xamul may ma ma daw ci biir tàggoo xamul may ma daw ci biir tàggoo xamul may ma ma téléphoné wax leen xamul may ma ma téléphoné maa ngi dem li may wax li may wax sa bopp bii laa ko jëkkee man mii man mii aji màkka yi aji màkka yi bari na bari na lool waaye li yàllay nangu waaye li yàllay nangu néew na néew na trop yonent bi ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax gouvernement ci boppam nee na gouvernement ci boppam amul xaalis boo xam ni président danaa Macky Sall nee na président la bi amul xaalis boo xam salaire bi ñu koy fay nee na salaire bi ñu koy fay mujj ko dugal ci poosam mu dugal ci poosam munu cee dagg fanweeri billet munu cee dagg fanweeri billet ba ñeent fukki billet gouvernement nee na gouvernement day dem trésor public day dem trésor public dem ca borom avion dem ca borom avion ya ñu ko daggal ma téeméeri avion ñu ko daggal ma téeméeri billet ñu ko daggal ma téeméeri billet bu jëlee bu jëlee joxi ministre am joxi ministre am joxi préfet joxi préfet joxi gouverneur am joxi gouverneur jox ku ko neex jox ku ko neex waaye fu mu koy fayee waaye fu mu koy fayee trésor lay dem trésor lay dem trésor public. trésor public xaalis su sàngaraa nga. xaalis sàngaraa nga fa xaalis su tee nga fa xaalis wujjee nga fa. xaalis su duwaana nga fa xaalis duwaana nga fa. xaalis jigéen ñi mooy yàlla nga fa mooy yàlla nga fa. li ñu Europe di dimbalee ma nga fa. nee na li ñu Europe dimbalee moo nga fa. président bindi sec. président bindi sec fay billet ya. fay billet ya. man de yooyu billet. nee na yooyu billet. bu ngeen ma ko mayoon bu ngeen ma ko mayoon ma defaree ko sama oto. ma defaree ko sama oto. bañ ko dem màkk. ma ci dem màkk. <laughs> waaw léegi nag. léegi nag. ginnaaw yàlla dafa nekk bari fu ngeen di dem. nee na yàlla dafa def ngeen bari fu ngeen di dem. te tardé am na. te tardement am na. naa yemale fii wax ji nee na dina yemale fii wax ji li ma bëggoon a wax nee na li mu bëggoon a wax mënoon naa koo génne mënoon naa koo génne ba jant bi so ba jant bi so dinaa leen xamal leen ne fii nag xamal fii nag loo xam ni neew xam ni waa Kébémer laa bëgg ñu xam ko waa Kébémer laa bëgg ñu xam ko fu ma toog danaa ko wax nee na fu ma toog danaa ko wax du ma moroomum gone du ma moroomum gone sama baay Cheikh Mat Jimbira Cheikh Mouhamadou Jimbira dafa xam yàlla dafa xam yàlla xam yonent bi xam yonent bi jàng alxuraan jàng alxuraan xam farata xam farata xam sunna xam sunna topp Cheikh na Cheikh Saad topp Cheikh na Cheikh Saad topp juróomi atu yàlla juróomi atu yàlla xam ni buy wax. xam ni buy wax. malaaka raqiida ngi ci mbaggam mii. nee na malaatu raqi maanaam malaaka mu ngi ci mbaggam mii. atik moo ngi ci mbaggam mii xam ni dina dugg ci biir bàmmeel. xam ni dugg ci biir bàmmeel. xam ni lu mu wax. xam ni lu mu wax. ëllëg ëllëg dana jàkkaarloo. dana jàkkaarloo yàlla sunu borom yàlla subhaanahu wa taala mu waxaat ko ci kanamam kon kookee. kon kookee du waxantu du waxantu de. moo toog 1968. moo toog 1968. woo sama yaay. wooy sama yaay. mu ñëw mu ñëw. mu ni ko soxna Xadi. mu ni ko soxna Xadi. na xam ni nga xam ni man Cheikh ma dimbali man Cheikh Mamadou Dimbali. ma dee du ma dee damay làqu damay làqu rek. kon man. man kon man. lu ma def. lu ma def lu ma wax. mbaa lu ma wax lu ma fi toogee. lu ma fi toogee Cheikh ma dimbali laa toogee rek. keroog bi Samba Ndiaye jàmm génne àddina. keroog bi Samba Ndiaye jàmm sàmm génne. laa dem ca xabru. laa dem ca xabru ba ni ko bàyyi. ni yow dey. yow dey xaw ma foone. xaw ma foone waaye man de fii laa la mujjee. waaye fii la mujjee Samba Samba dey. Samba na àddina génne na ma ko indi. daañu ma ko indi bu subaa. ma jébbal la ma jébbal la ko. ay mbokk ma def leen ay mbokk ma dina ko na ngeen xam ne xalifa. nee xalifa do bëgg nit ba jox ko ko. doo bëgg nit ba jox ko ko. deesu ko leble. dessu ko leble nek doomu sëriñ du tax nga nek ko. doomu sëriñ taxul nga nek ko. yàlla ak yonent mbé koy tudd. yàlla ak yonent mo koy tudd. ak Cheikh Mat Jimbira ak Cheikh Mamat dimbe ak Cheikh Sadbu Cheikh Sadbu mu def mako mu def ko kep ku sagal kep ko xam ba nek khalifa nek khalifa billahi billahi wallahi wallahi wa tallahi da ngay dé da ngay dé way dina ko nek way dina ko nekk mënaloo ma dara. dëgg la man duma morom moroomu gone. nee na man du ma moroomu gone لما نكي لما نكي سامع جيمي لاي خي سامع جيمي لاي خي مام لاي غولتي مام لاي غولتي مام لاي فنانو مام لاي فنانو كوساغن كوساغن بما نك خليفه سامع جيمي بما نك خليفه دا جاي سون رك دا جاي سون رك باي بالله دوما في جيري واي دوما في جيري موك نك maa ngi yemale waxtaan wi foofu nee na moo ngi yemale waxtaan wi foofu waa Kébémer xam. nee na waa Kébémer nañ ko xam ni man mii. man mii duma xalifa bu ñu suyee choisir. duma xalifa bopp vraiment choisir duma xalifa bu defuma ko sama bopp. ngeen defuma ko sama bopp. yàlla ak yonentam yàlla ak yonentam ak Cheikh Ahmad Djimbira ak Cheikh Sall moo ko bëgg. moo ko bëgg koo sàggan. koo sàggan ba mu juddu ba mu juddu. bàyyi ko bàyyi ko boo ko mënaloon dara boo ko mënaloon dara du juddu du juddu. bismillah. تنزل الأرض الرحم تدعم المنزل عبان فهم خافر أقل القول على سنفهم لا يؤمن إنا جعلنا في أن آخر وأهل الأرض فهي أسفلكم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخزيناهم لا يشركون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من صبر ذكر وخسر من الغي فبشر ما مغفرة الكريم إنا من الموت ونكتب ما قدموا فهذا كل شيء أحسينا وفيما أمركم اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش ما شاء الله كان ما لم شاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن لا هذا في بكل شيء اللهم إني بك من شر نفسي ومن شر كتابك أنت أغذب العافية إن ربي لا صلاة مستقيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. آه، آه،